épinglé naka noonu aussi dañu waxtaane visite bi nga xamante ne président Bassirou Diomaye Diakhar fay def na ko fële ca Mbour 4 ngir xool nekkinu terrain yi nga xamante ne joxe woon nañ ko ci ay anam yu euh, doy waar alors ci biir euh, jotaay bi aussi dañuy am ay invité ñooy waa muraille waa grande muraille verte autant pour euh, moi pour ñu ñëw ñoom aussi wax seen xalaat ci li nga xamante ne ñoom moom la ñuy jooy alors ki may njëkkee ci nuyoo bi jëm ci ñi nga xam ne mo la ñu tey

wala di jaajeufal ñep di leen sante euh, di nuyu kep ko xamne yaangi yaa bir kewulo euh, di wax suñu mbokk yi nañu euh, nañu nañu connecté wu wala ñu abonné wala sétane émission bi émission bu am solo la senu grande mirai verte la senu ndaw ñi la senu Afrique la wala di jaajeufal ñep di nuyu wa Bambali ak wa Sédhiou sant sou 1 sant sou 2 sant sou 3 ak wa ki Mané Kounda Dakabantang Cincinkuru wala mm. ak Kabumba ak dëkk bi lu mu turati sax euh, Ngindir. Mhm. ak Bambali bu may bu may bu ma bu ma dëkk. d'accord mm. ak Cincinkuru mhm. <laughs> ak Cincinkuru ku doon nee na nga boole ci Cincinkuru. waaw Cincinkuru waaw. Mm. xam nga Cincinkuru. xam naa fa waaw. d'accord mm, waaw. Mhm. merci beaucoup alors keneen kii euh, Ibrahima Sori Diallo lañ koy woowee moom nag coordonnateur national des agents d'appui forestier la ci mbiru xëyu ndaw ñi nuyu naa la waaw fay naa la soxna si. di la dalal maa ngi jaajëfal di nuyu ñëpp di ñu ñoom ma bokkal ci plateau bi. Mm. effectivement tamit di nuyu sama collègue euh, Mané on ami on frère. di nuyu l' ensemble des agents d'API Eaux et Forêts ñu nekk ci programme xëy ndaw ñi. te tamit di nuyu ñi nga xamante ni vraiment euh, ñu ngi seetaan Kewel TV en direct. di ñaan tamit sama collègue yi ñu mën a dugg seetaan émission yi ñu partagé ko tamit euh, ñu abonné ci lien bi ñu xam ni vraiment euh, télé bi dafa nek télé bo xamanteni c'est une télé qui est là pour la jeunesse donc jàppale ndaw ñi mo leen tax a donc waral ni vraiment ngeen invité ñu gis leen taxaway mm-hmm. ñaan yalla yalla defal ñu tawfiq wér-gu-yaram waaw. allahuma amin merci beaucoup alors kenen ki may andal ci euh, jotay bi comme euh, très souvent hein, Clédor Sène lañ koy wowe brom Clair Vision Clédor d'or naa la. salam Thioro maa mang lay fay di la ziar di nuyu suñu invité yi monsieur Mané ak monsieur Seck. Hein. Mm-hmm donc euh, di am chaque fois ak Ange. Mhm. sourire bu <laughs> sourire facile. Mhm. donc euh, ñu fas sur survoler actualité d'accord mais am ak peut-être pour une fois. Mhm. dañu expliquer à l'opinion d'abord. lan mo tax muraille verte. lan projet muraille verte. Euh, bala ñuy dugg ci biir euh, problème yi je crois que dina am solo. inshallah ñu campé décor bi déjà pour ñi ko xamul. Mm-hmm. di ko dégg rek xam lan mooy.

nekk ci wetu euh, Clédor mm. xam nga moom buzz yi doo kaa topp <laughs> donc nekk ci wetam rek da ngay da ngay amaale waaw da ngay amaale buzz demande te waaw gars yi mm. ñu ngi naan ñu ngi def demande sociale nee nañu en tout cas soxla nañ leen la ci euh, ministère yi mm-hmm. soxla nañ en tout cas ci mm. wetu gouvernement bu bu bees bi nee na loolu da koy déranger ñu ngi liggéey suñu liggéey mm-hmm. ah. ñu ñu leen di yàkkal ñoom nañu nañu nañuy déglu rek

nu muy euh, demee alors monsieur Mané ba ñu doon indil leeral jëm ci loolu laata ñoo xuus ci euh, débat bi lan nga ñuy wax. waaw lu ma leen di wax rek ci Grande Muraille Verte Grande Muraille Verte euh, benn. pàcc la boo xam ne yàgg na fi depuis jamono Ablaye Wade lañ ko doon dégg mhm. mais yaataluñu ko woon ba gouvernement bi ñëwee Macky Sall dafa président de la république bu fi jóge dafa ne xaar ma yaatal ko pour ma mën cee créer xëy ndaw ñi pour ñu mën a liggéey mais jëmbat garab la daal moy renforcer environnement bi la. Mhm. mu nek liguey bu am solo nga xamné ay jigéen fa ak ay euh, ndaw yo xamné dañ ci ils doole di liguey liguey bu muccu ayib liguey bu rafet. bo démé ci autoroute Ila Touba bi di nga gis euh, garab yu ngay gis non ñi jiw jiw mhm. tamit si forêt bi ci forêt classique renforcer les arbres pour pouvoir ñu mëna récupérer taw bi comme bu jëk ba xam nga bu à ba dafa doon taw ay 6 mois mhm. légui bo xolé ñak garab yi léegi gars yi dañoo mujjee ñàkk taw bi mais léegi il faut que ñu jëmbat lu bari pour mën a récupérer taw bi mën a ñëw lu mu war a ñëwee ak tamit euh, boo xoolee feu de brousse chaque année day day am ci biir àll bi loolu tamit dañ ciy taxaw bu feu précoce jotee day am ay mois de décembre yooyu dañuy dem def précoce pour bu xal bi bu mu bañ am doole pour bañ a lakk bi yëpp dañ def euh, amna ay liggéey yu rafet yoo xam sax ñu koy def ci biir Grande Muraille Verte mm-hmm. voilà am solo alors monsieur Diallo ma bëggoon xam peut-être demande yi na mm-hmm. c'est pas la première fois ngeen ñëw fii ci kër gi ñu leen di dalal ngeen di ñaxtu li leen euh, metti mm-hmm. jamono yi lan ngeen di euh, ñaxtu pour ñu dimbali leen ci ok avant tout d'abord Maine, illa ma kataballahu lana wa huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun di nuyu ñep donc ñaxtu bi ñaxtu bu profond la euh avant tout nga xamne ñun ñu ngi ci programme xey ndaw ñi ñukoy dor 2021 en août ñu ci bari bobu lañ signé sen contrat man nak ma nekkon fofu ci secteur bu Tambacounda ma daj vraiment ay menaces ak ay injustices yu bari pratiquement nak samay ñu ñu des donc ñax fi dañu des bari. surtout que ñepp instant bi avons jarul sax ñu nous di expliquer fi ko fi wax rek mouvance bu fi jall peut-être ku ci ak ci lu ci xew donc xeyu ndaw ñi euh, d'abord lu ñu joxe 2000 nga jël ci un d'abord état bi bu faux chiffre deux fay ndax xam ngeen dañuy 4 mois. manam ay emploi fictif. emploi fictif. d'accord mais lolu c'est récent nak emploi fictif yi parce que ñu ngi commencé di duggal seen nit bi ñu pouvoir bi ñu ngi commencé di duggal seen nit ci secteur yu bëri lii c'est récent mais même amon na euh 2000 Matuko. dañuy liggéey 4 mois doo jot sa salaire bo naré wax ni naan la fi on gère on gère fi kenn du fi wax mais ñom dañu faté né ñun ay civil lañu parce que ñun ñu ci gëna a bëri ay étudiants lañ. Mm-hmm. donc ñun am nañ plein droit wax parce que gay wax nañu carrément vous n'êtes pas des agents assermentés vous n'êtes pas dans l'armée ñen ay civil ngeen. Mm-hmm. donc ci ay pàcc pàcc yoy non taxon na ba août mars 2021 mille ba dernier wala 23 demon nañ même Kaolack def sunu point de presse parce que bobu dañ nekkoon à quatre mois de retard buñ saa yu ñu retard du ñu jékki saay rek dem dañuy def point de presse dañuy def benn délégation waxtaan ak chef secteur waxtaan ak inspecteur régionaux yi ñoom ñoo ñuy franchement mu mënuñu ci dara mbir mi peut-être ministère ministère dem nañ ba ministère de l'environnement man ak samay nit avant ministère de l'environnement dañuy ñëw ba euh, direction des eaux et forêts fekk ñu bay di fait que fekk fa adjoint bay ba actuellement moom moo nekk directeur des eaux et forêts John ñu fekk ko fa mu ne régler seen i problème

dama koy njëkkale d' abord ci ministre de l' environnement Aliou Ndoye kooku moom je ne cesserai de le parler ak ay acolytam moom moo xam moom ak kan ñoo bokk mafia yi te même ba ci ministère de l' environnement am na un certain monsieur euh, Sey lañ koy wax ñu naan moom mooy coordonnateur xëy ndaw yi foofu ci ministère bi ñëw nañ ba ci moom ñu expliqué ko tegal ko ay dossier ne ko am na arriéré yamante ne depuis deux mille vingt un yor naa liste bi fii depuis deux mille vingt ñeneen ñi cinq mois la ñu yor. moo xam ñi nekk Matam am na Kédougou waa Kédougou ñoo xamante ne seen trente cinq agents yor nañ arriéré trente trente trente cinq agents yëpp yor nañ arriéré deux mille vingt deux ba léegi gars yi fay ñu leen amul kenn ku jot xaalisam. nga bàyyi ci loolu nga dem fii ba gi pratiquement c'est niveau national. Hmm. arriéré doo mun a wax ba nga jot ko sey moomu moom lañu def foofu noonu comme coordonnateur. Euh, xëyu ndaw ñi ñun agent d'appui forestier saa ñu demee moom moo ñu jox renseignement mais moom dafa dem ba à fin moom daf ñu bloqué suñu ko woowee du ñu jël ministre de l'environnement nag bu demee ba ñu war a renouveler suñuy euh, contrat euh, après nag ñu commencé seeni parti prise seeni injustice daan ci ñeneen nangu seen contrat confisqué leen li ma ci gën a metti mooy naka ngay defalee benn ndaw nga xam ne Il a ko defal contrat avec l'État nga defal ko contrat ba pare. quel genre de contrat. contrat à durée déterminée pour deux ans. Mhm, donc c'était 2021 à 2023 normalement budget pour 450 milliards mais nous sommes trois ans là tamit Nous sommes trois ans là... mais avons signé signer contrat pour deux ans mhm. mais nous sommes trois ans là... 450 milliards nous avons voté assemblée nationale. 150 milliards par année. Il y milliards Légui Aliou Ndoye amna budget bobu bu milliards par année pour les malgré tout ça dañuy écoper 3 mois 4 mois kenn duñu fay ba ñeneen ñi sax su ñun am ñoo ñak nañ si lo xamante seni seni seni momel wala gaay nous ci ay location mais après ça lu ma ci fait metti mois, mooy nga toog 4 mois fay ñu fait ba pare ñu naan la non yow da ngay daw di justification instant mm-hmm. amuñ lenn lu ñuy wax naa naan non ñu ñoo ñuy dàq wala ñu jotuñ seen salaire dañ du nekk di xëy alors que ñoom sans compter sax seen papa papa yooyu chaque fin du mois ñoom ñuy percevoir seen salaire te doo dem ba trésor sax nga am ci lu la leer Tamba on a été chez le trésor ñu dem si payor régional bi mu ne ñu jot naa état euh, mais parewuma d'abord damay xool beneen mois moom def dañoo ñëw mu ne moom gisul état mais bu mu xamee ne ñun commencé nañ insister mu jël téléphone am def nii comme si day woote jëkki saa mu ne waa gis naa état bi ndekete ñëwoon na man maa gisul message regarde-moi ça lu ma am na benn cas boo xamante ne boobu dama ko exposé. léegi tegal foofu sa loxo ci cas bi ma jox kàddu gi Clédor après ma daal di ñëwaat ci yow amul problème. alors Clédor ban xalaat nga am ci ñi nga xamante ne ñooy waa grande muraille verte yore lépp loo xamante ne ay garab yu ñuy jëmbat la ngir taaral environnement bi. non euh, li ma ci xalaat rek mooy moom li mu wax c'est-à-dire sen ak ak sen yelef ñu respecté wu sen contrat de travail yu ñu respecté wu lolu dafa bëri dans tous les départements au Sénégal te je crois que nguur gu bees gi war nañ ci jéem a parce que bo xolé temps yi ñu wax lu bëri ci Sabodala ak Massawa euh, mbirum or bi mais ñom man suma leen déggee day melni ñom lay déglu parce que ñom aussi bëri na ño xam ne dañu fa liggéey ay années sax mais té té té respecté wuñu sen ay droits contractuels ñom ay CTT sax li ñom contrat de travail euh, euh, temporaire lolu moy moy CDD rek genre CDD la rek CDD voilà les euh, ken régulariser wu len té dañ fay def ay années dañuy romb ay 5 ans té ken du len régulariser donc c'est vrai que amna ñu fa jël CDI mais sen àq ak sen yelef duñ ko respecté sen heure de travail aussi duñ ko respecté parce que ñoom ñu waroon monter trois quarts de huit heures de temps xam nga loolu laa waxoon mais léegi dañ ko def deux quarts douze heures douze heures xam nga douze heures de temps liggéey loo ni douze heures de temps daf metti rawatina nag euh, ñu bañ a sàmmonte ak ay àqam ak ay yelleefam li ma dégg ci monsieur Diallo mooy ñoom chaque année dañuy am budget cent cinquante milliards ñoom deux ans lañ leen contracté pour un programme triennal donc dina am benn cent cinquante milliards boo xam ne du jël en compte ñom seen activité ci enveloppe globale 450 milliards bi étalé sur 3 ans c'est ça Absolument. donc lolu dafa laaj euh, euh, audit ak chamber de la part de nouvelles autorités parce que aussi euh, programme Grand Grande Muraille Verte boo gisee ma bëggoon ñom ñu gën ko expliquer mm-hmm. nit ñi mm-hmm. au-delà de leurs revendications parce que da nga ci gaaw génn trop d'accord c'est pour ñu xam importance projet bobu ci suñu écosystème ak suñu préservation environnement ak le muy freiner l'avancée du désert parce que nous ci pays yi désert menacé lañu euh C'est dommage que ce ci trop mais revendication corporatrice yi ngeen di def mais presque administration bi yëpp Nous lay doxee. Mhm. dañuy dañuy dañuy dañuy les droits des travailleurs parce que travailleurs, bu démé ba ñëw sur la place publique pour ñu respecter ay droits ça veut dire que amul solution. amul solution waaw. solution. Mhm. loolu je crois que ñun ñii day baax ñu ci xam dara pour porter les combats parce que ñoom tey lañ fi ñëw mais nous on sera là tout le temps. Mhm. nga xam à chaque fois que de besoin ñu ñu rappeler les problèmes cruciaux pour que autorités yi ñëw bees euh, jël les solutions. qui s'imposent surtout que ñoom dañu am souci pour embaucher le maximum de jeunes ou de occupation. Je crois qu'en matière de reboisement, c'est combien, combien d'hectares le programme de la muraille verte C'est Dakar à Djibouti. Dakar à Djibouti. Mais lui concerne le Sénégal, bon, c'est énorme. C'est énorme, wow. Lui concerne le Sénégal. Il faut Manam programme pour Le Beau ma bëggoon ñoom ñu dugg ci ci programme Grande Muraille Verte. ñu bëri dañu foog ni. Mhm. Sénégal la yem. dina ci dugg c'est un projet qui vise le Sahara. Mhm. et la euh, freiner l'avancée du désert. Mhm. effectivement te projet la boo xam ni ñëpp ci d'accord ñëpp ci d'accord donc dëkk bu nekk dafa am lu mu ci war a def. mais au niveau du Sénégal fii rek déjà je crois que mën na absorber. Euh, beaucoup de jeunes en matière euh, d'emploi d'emploi plutôt mm-hmm. donc euh, gouvernement bi daf a fait un ko fratal. et ministère de l'environnement mënul un programme bu a importance programme muraille verte parce que sans rek en offre, nous allons discuter de ci ay espèces yi nga xam ne mm-hmm. moom lañu waroon le a comme la bi comme mm-hmm. comme comme le carité, Il y a pour retombée économique donc a yep, je crois que lu ñu war a lu ñu war a liggéey la lu ñu war a travail la mais waruñu ko woyofal waruñu ko banaliser donc euh, li ci jiitu nag mooy ñi koy liggéey ñu sécuriser seen emploi donc euh, parce que c'est un programme à long terme pourquoi CDD mm-hmm. sur deux ans mm-hmm. bu ñu mënul def CDI sax mën nañ def par 5 ans. par 5 ans voilà CDD par 5 ans. waaw mm-hmm. am na solo alors en sa première réaction waaw euh, en tout cas li li doon wax sànq léegi nii par rapport ak seen revendication yi loolu lu lu yàgg la euh, parce que je me rappelle la première fois bu ñu leen di jël mhm. ñu ngi doon revendiquer par rapport ak euh, point yi ñu doon énuméré sànq léegi nii mhm. parce que déjà boo xoolee programme boo xamante dañ koy étaler ci 3 ans ñoom ñu signé nañ ay contrat yu xamante 2 ans lañ koy yemale donc dafay am benn ci partie budget bi nga xamante ne kenn xamul fan lañ koy fan lañ koy dugal 150 milliards par par par an yi nga xamante ne 450 milliards yoo nga signé 2 ans yoo xamante ne ci ci ci lay yem troisième année bi ana ana budget troisième année bi ana fan lañ ko fan lañ ko dugal du moment où ñom ñu ngi jànkonteel ay problème salaire ñeneen ñi ñu ngi am ay fièvre parce que bul fàtte ne ñom ci biir Allah bi lañuy ñuy nekk te ci biir Allah bi lepp xaj na si am ay jaan amna ay risque yo xamantene ne mën nga dugg ci biir Allah bi nga mm-hmm. jànkonteel wa loolu la je pense que certainement certainement dina dina si ñëw donc loolu kese kese kese doy na pour ñu jappalé lañ ci li nga xamantene ne moo di seen liggéey bi mm-hmm. d'autant plus que c'est c'est des jeunes je pense que ku jël engagement pour dugg ci biir Allah bi c'est parce que tout simplement dafa am lenn loo xamantene moom moo tax yow nga nga nga dugg ci am na benn esprit de patriotisme parce que ñun ñëpp koo xamante dañ lay jël dugal la ci biir àll bi pour nga dem jëmbat ay garab wala di clédor mu ko doon wax sànq léegi nii doon mën nañu yaatal am wala ci li nga xamante mm. moo di dëkk dëkkaan comme ci ay moringa donc dafay doon ay garab yoo xamante amal nañ njëriñ askan parce que mm-hmm. non seulement nit ñi mën nañ kaa jëfandikoo pour des soins waaye itam mën nañ kaa te tey fu ñu toll nii war nañ leen en tout cas daal war nañ rectifier injustice bi nga xamante ne moom lañ teg ci seen doon. am na solo Ange Marie alors monsieur Mané bëggoon nañ nga ñëwal ñu comme tout ni ko Clédor waxee seen programme ak tamit seen liggéey naka lay demee ci terrain bi. Euh, programme bi comme nu ma leen ko waxee rek euh, mm-hmm. programme bi problème yu fa nekk dafa bëri. Mm-hmm. bu ñu nekkee fii di ko liim fii ba suba du jeex. mais di leen xamal benn affaire dafa am ay affaires yu garaaw yoo xam ne ñoom ñun xam nga ñun waa Grande Miraille ñi Euh, forestier lañu ñom ay quota la ñu am ils sont nombre de 3000 DEC 1000 la ñom ñoy 2000 d'après si lu ñu wax ñun 7000 la ñu ñun suñu ñom ils sont directement liés avec le ministère de l'environnement ñun on est directement lié avec euh, suñu DG Omar Abdoulaye Ba voilà scandale yu fa xew boko ko ceen boo xam parce que ñu ngi wax yenen dossier mais fi scandale bu mag a mag moo fi xew imagine ngay liggéey ay ndaw yo xam ne da nga leen di ay mois ay omission yu dul jeex mun nañ la tëb 2 mois ñu ne la dañ la ko omettre bo deful ndang dang kay daxé do ko jot té depuis 2021 ñu ngi yoron ay ndaw xaaliss yu dul jeex loolu bugul kenn buguñu kenn tudd ko ba mu défé lool nak mom Omar Abdoulaye Ba dafa fal ay délégué par décret ba paré né len sambal len ma li képp ku génn ngeen jël turam ngeen remonté ko pour ñu dàq mom moom décret bi fekk na ñun dañoo jëkkon organiser nek ay délégué ba paré mu falat ay yenen délégué pour jéem sacrifier ñeneen ñu jinnu ay ndaw Sonko ba paré dakk ñu bo xolé plus de ah, centaine éléments mhm. waaw man mi ngay wax man mi wax ak yow ni tay liggéeyatuma fa mais plus de centaine éléments yo xamné dañ leen dakk ay père de famille man demone na ba ne damay bay mais ay mag ñoo lay woo da ngay leer né ki liggéey bi soxal na parce que ci li la yaakaar day da ngay nit dalay wo bay joy ñu jékki-jékki rek xëy génnee leen jox ñu leen notification parce que nit bokay koy génnee da nga ko defal notification nga ne ko ah fi ba quelques mois duma la jox mais lu gën a dangereux nangu ñoo joxe contrat yi te may nañ ko audit deux fois moom moo ne ñu may ko audit deux fois nangul joxe contrat yi loolu pour mën a dóor booy la. kon yéen seen contrat signé wu leen ko. si nañ ko mais contrat bi retour bi doo ko gis. ñoom ñoo ko téye la waxee ñu ne am copie quoi. ñoo ko kii voilà ñi ñi sax tane nañ am nañ boo gisee boo demee inspection travail pour réclamer doo si mën a jot. Diop Taïf ngay gis noonu ci liggéey bi la bokkoon mais c'est rare nga dégg mu wax si. Mhm. dàq nañ ko. Mhm. dàq nañ ko dàq soxnam parce que dañ ko téye si injustice tëj ko mu génn déposer plainte plainte bi gars yi bu njëkk ba ñoom ñoo fa nekkoon dañ ciy teg seen tànk. Mm-hmm. fii loo fi wax rek am na lu des xoolal ma ay chef de pôle la fal ñoo xam ne chaque pôle dafa def ay chef mm-hmm. chef de pôle chef de pôle yooyu amuñu mm-hmm. benn njëriñ boo xam ne am andil nañu ko rôle gendarme lañ fay joué parce que lan la waa toog muy dox lañ. Mm. il faut que ñu wax ko mu ci kaw mu am. parce que mm. naka ngay amee beneen euh, chef de pôle boo xam ne moom moo la jàngal école. yow mu nekk sa enseignant nga jël ko dugal ko si xëy ndaw yi te ñu ne xëy ndaw yi loolu du xëy ndaw loolu xëy paala ñoom ñoo fa nekk di jouer rôle gendarme. Hmm. amna ñeneen ak ñeneen bo waxe ñu jël sa tour yobbu ko agence ba ñu dakk la. lolu rôle bobu lañ fa nek di jouer te xolal fi ci walum contrat yi fépp foo dem day metti hmm. exemple rek la lay jox wa santé. Hmm. xoolal santé. santé da ngay gis kuy liggéey 3 mois et 3 ans yo xamné amul amul retour de contrat ñu téye leen te ñu ngi souffrir ñu ngi souffrir bu baax baax. waa santé xoolal boo demee da ngay des dégg ñu ne la femme bi dafa naqari deret naqariwul deret lu muy dund la à l'intérieur mm-hmm. dafa métti naka ngay liggéey nga yor njaboot ñu war la avancé loo jox la sa salaire salaire bu baax pour nga mën a yóbbu te ñoom bu ñu feebaree ñoom ñooy faj seen bopp maa ngi ñëw si anti anti date bi bu mu def si CMU bi CMU bi depuis de lañ ko signé le premier euh, le premier décembre 2022 mais mon cas considéré euh, ñun ñu ko signé depuis depuis depuis qui léegi ins bi la ñu commencé jot séem yi hmm. moom considéré depuis 2022 la ko signé te kenn faju si te am nañ si ñoo xam dañ si décédé am na koo xam ne jabet la amoon ñu dagg tànk bi mënul faju ba fani yi la décédé hmm. façon kii bu nekk am na ñoo xam ne jaan maate nañ ci am na ñoo accidenté nañ ci. voilà foofu laa bëggoon ñëw seen biir liggéey nu muy nu muy en fait sur le terrain. sur le terrain da ngay dugg risque la même qui xal yi sax fay xal faux précoce yi des fois bu xal génne ni da ngeen di génne dem fay ko loolu yëpp risque feu de mm. brousse mais amoo leen matériel amoo leen dara année tenue benn année ngay am si tenue benn année boobu lañ ñu jox tenue mooy début bi ba tey gars yi amuñu tenue amuñu protection loolu la demee ci biir àll bi seen jour ak seen heure de travail naka la doon demee jour heure de travail bi da ngay liggéey ba midi 13 euh, heures nga wàcc après ngoon nga xëy 16 heures ba 17 heures 15 euh, heures ba 17 heures nga wàccaat mm. voilà loolu foofu mm. mais am yenn gox yoo xam ne ñoom dañ leen dañ leen di voilà té loolu ñun moom dañ koy xeex. d'accord voilà euh, bo xolé tamit si euh, ci ci ki bi euh salaire yi salaire yi day tardé salaire yi day tardé bala ñu lay fay di nga tok ay 3 mois yo xamné do am salaire légui day am ño xamné dañuy am ay ay kii lu mu tuddati sax ay dette yo xamné dañ ko wara fay yobu seen jabot duñ ko am loolu dafa metti té loolu bëgg nañu gouvernement buy tok fi mu jappalé gaay ci salaire yi salaire yi muy teel a pour mu jàppale booy salaire yi muy teel a en fait ño xamné dañ leen génné injustement mu jappalé leen parce que nous dañ may wo tout le temps bo gisé sama lepp la bàyyi sama activité. depuis daw ma ngi xex parce que jamono Sonko ak aji ci Adji sar ak mambay Mbaye Niang moo amoon man sama voix mënul yegg. parce que actualité bi moy lool ñun tuumal nañ fi jël boy sax xol dañu dem bané est-ce que du par profil lañ leen di parce que amna ño xamné boy passé fi dañu ne mané est-ce que man du sama profil lañ jël ci génneen té le malay profond moo tax ma DG il faut ko mu toog ak ñun bu toogul ak ñun dina am ay jafé jafé de parce que ñun ñoo gëna maîtriser lu fa nek parce que ñooñu noonu ñuy wax délégué DG yi ñooñu lépp la ñu yàq ñoom dañoo foone woon di daneen ñu des fii parce que ay privilège lañ leen tegaloon mm-hmm. voilà dinañ jox leen ay ordinateur xaw ma lan di leen yóbbu ñuy yaataa yumbee voilà pour sacrifier seen i mm-hmm. ñoo ñu jor nañ seen dossier te dinañ ko jébbalu ministre bi ak euh, DG bi mu xàmmee leen mm-hmm. ñu ñoo yàq ni yëpp ay njaboot ñooy toog di jooy loolu du yoon te gouvernement bi ñu yor ñu ne jub jubal jubanti léegi donc ñom nañu def jub jubal parce que eh, ay partenaires ñu ngi ñëw ci agence bi yo xamné Israël yéen a ngi leen di gis te waxoon na gutaagut dina ko def ci yoonu euh, ki bi Ila Touba bi pour mais romb ngeen da ngeen fay rom gis ngeen gutaagut te loolu gars yi boo def ndànk versé nañ ci xaalis té bi sa quelqu'un qui ko xamné c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un ko xamné ku ndaw la n'importe qui c'est pas n'importe qui moom moo euh informaticien de l'État war ngeen ko xool boo leen xoolee ci 2019 élection yooyu passé di ngeen xam ban rôle la doon joué foofu dañ ko jox kaar paaru paaru gàttom mm-hmm. voilà te moom maîtriser wul c'est un informaticien nga jox ko lu mel ni grande muraille vert mm-hmm. voilà muy mu leen di diriger muy nekk foofu di def lu ko neex bugul kenn wax ci ci dossier bi dañ koo wax ci dossier bi deux jours mu daw dem ci RFM dem attaquer Ousmane Sonko mooy problème Ousmane Sonko euh, Mame Mbaye Niang pour ñu bàyyi ko fa Mm. bo len xolé RFM ci Babacar. voilà ci Babacar euh, Fall. Babacar Fall voilà émission Babacar Fall bo len xolé ci archive bi di ngeen ko gis. voilà di ngeen ko gis même euh, ci semi bi semi bi tamit dafa am lu mm. graw lo xamné mo moo fa nekk. Mm. sémi bañ ko défé ñun gis ñuko parce que def nañu vidéo ba def ci ministère de l'environnement moi j'étais là-bas mais vidéo bi mooy couverture maladie universelle bi mm-hmm. pour nit ñi mën faju gis nga légui si euh, couverture maladie universelle bi vidéo bu ñu vidéo bi dafa réel

kii dañ ko génne dañoo xëy génne ko parce que dafa doon xeex dem na fële na expliqué loolu na fu mu demoon fële na conférence de presse au niveau de de de de Kaolack ñu dañoo def conférence de presse au niveau de Thiès. moo tax ñu génne ñu cinq délégués yooyu daf leen rabassé ba pare yamul foofu muy génne ay ndaw bañ ko laajtee mu ne ay ce sont des ndaw Sonko pro Sonko lañu. loolu mooy mu génnee leen ñoom ñëpp ins bi nag mu ngi def ay ay recrutement yu garaaw moo tax ma ne DG bi am na liggéey mu ngi roof pour mu mot 7000 agents te motuñu 7000 agents. d'accord. Hmm. boo xoolee Bounkiling génne nañ fa 16 éléments la ñu génne woon remplacé nañ par trentaine éléments yoo xam ne ñu ngi fa loolu c'est dangereux te foofu la jabaram dëkk suubaato te boo yooyu noonu boo xoolee bu njëkk ba ñu bëri ñu ne daanuñu woon liggéey parce que man nekkuma fa parce que ñu fa nekk ñoo ma doon jox information yooyu euh, ñu ne ñu bëri daanuñu liggéey te ne dañuy fayeku am na ay fictifs yoo xam ne ñoo fa nekk ñoom ñoo leen créé mm-hmm. c'est des choses yo xamné ne kenn mënul xam la toll. fictif kay mu ngi bëgg bëri. voilà légui ñoom dama dañoo bëgg ñun. parce que déposé nañ ay plainte yo xamné bu njëkk boko ko déposé si biir tiroir bi lañ koy def du jall déposé nak avocat ba mu génné kasso parce que dañ ko téye yaron nañ ko plus de 17 mois bo xolé ba légui ni parce que si yoon dañ ko war fay dañ ko téye téye ñuko ci anam bu leer. ñu xey génnee jabaram xoolal lolu ban condition la job nek xamuñu ko. job jabaram bobu mo nekkon loxam ba mu nekkoon biir prison job Taïf ñu xey gene jabaram job Taïf ba ma ko woowee la la mo wax mané dossier bi mun ma ci wax léegi mo ci waxe dañu naan damay woyaan parce que gis nga man xam nga ñepp ñu may tek bët dañu naan la job dafa soxla xaliss ak yoy mu ne ma le moment venir dina ci wax d'accord boobu ba waxti bi joté ñew nañu fekkee ci conférence de presse bi euh def nañ ko ci buntu agence bi voilà wax nañ ci suñu doléance nak ñu ngi ñaan nguur bu fi nekk mu jappalé ndaw yi ñoo xamné dañ leen génnee insistement ñu délolé d'accord ñu delloo leen et puis ñoo xam ne tamit euh, bale bi bu mu fi bàyyi kenn de si l' administration bi parce que euh, def ils sont ils sont beaucoup fait du mal mm. waxuma la nag ci biir bureau bi am na ñu fa baax na xoolaat bu baax moom bu demee dina xool dina xam ñoo xam ne ñoom ñoo fa baax ak ñu fa bon lépp lu bon nañ leen dugal ci biir poubelle bi incha allah pour gars yi mën a avancer parce que liggéey bi mm. liggéey bu am njëriñ la santé ak euh, environnement dañ ko war a cëral ak l' éducation moo yor dëkk éducation moo yor dëkk moo yor dëkk quoi mm, am na solo merci beaucoup alors monsieur Sory yow ci yan anam lañ la dàkkee ci sa poste waaw euh, presque euh, mon ami mi laa wax na lépp ñoom daal dañu bëgg rek yor benn muselière def ñu comme ni ñuy def fas yi rek daalaka ca tool ya omat ñu yóbbu ñu fu leen neex ñun nag tranchement par ñun ñun du ñu demee noonu parce que ñun nous sommes des jeunes matures et conscients ñun lu ñu gis lu lu jàdduwul lu ne ñu wax ko mal boobu noonu mënuñu ko di gérer donc lépp loo xamante ne nii. wax nañ ko fi mën nañu la nettali lépp. Mm-hmm. injustice yi fa nekk dafa bëri. am na ci ay colonel yoo ngay xamante ni ñoom ñooy am seeni booy ci suuf di leen fournir ay information di leen fay xaalis fournir leen information ñoo ñu jël dossier yooyu jox ko ministre Alioune man bi ma defee point de presse bi Kaolack ma ñibbi Tamba ay bër vingt heures benn numéro ba ma woo inconnu.

ma ne ko ma vidéo yi ngeen def ni pour lan la ma ko expliquer mu ma tu n'as rien compris mais man lu ma ci gëna metti moy comment se fait-il que 450 milliards yo dama bëgg dal très sincèrement. yooyu mu lèr ci bop nit ñi yëpp mu lèr ci bop ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor affaire légui léegi ñu top dossier pour mu mëna lèr 450 milliards 150 milliards ndaw ñooñu sax mëno leen fay instant bi ni buñu paré suñu dossier am nañ quatre agents yoo xamante ne carrément état dañ leen yoral c'est ay milli c'est des millions et des millions Aliou ndoy nag dëgg yàlla dafa nekkul nit ku set man dama koy wax de dama koy crier tout le temps bi mu nekkee fi ministre de la pêche na reg nañu régler d'abord licence de la pêche bii d'abord nañ ci topp dossier salle de réhabilitation boobu noonu 2019 xaw ma lan 60 virgule 3 millions yooyu noonu nañ ko régler tamit ab balaa ñuy taboot après ñu xolaat tamit ci programme xëy ndaw ñi lu ma ciy wax moom bëriwul très sincèrement amul lenn condition boo xamante ne bu adéquat boo xamante ne agent yi ñu recruter ci xëy ndaw ñi waxuma la eaux et forêt wala wala ñu nekk AIBD parce que ñi nekk AIBD sax ñu ngi ci tolof tolof yu métti. d'ailleurs am na ku fi ñëwoon toog wax seen tolof. xam nga lu ok xam nga yëpp xam nga lu leen di gëmloo. CDD ngeen yor boo leen waxee ñu dàq leen. Mhm. té jamono joju ku fi rek ñu naan la yo pro Sonko. genre menace en fait ak. jaru menace mhm. d'accord man le chef secteur de Tamba il m'a appelé dans son bureau dima menacer mané ko man loolu titre man lii tiitloowu ma j'ai fait le syndicalisme universitaire. nan nga ko ko waxé mhm. ñoom ma ko man li tiitloowu ma. j'ai fait le syndicalisme universitaire. j'ai pas le sang-froid li ma war wax ma wax ko. jusqu'à la preuve du contraire ñun nak so gisee ñi top dossier top di wax ba légui c'est parce que injustice mo fa nek man ba légui amuma ben notification bo xamante ne ni dàq nañ ma te normalement dañ ma war defal notification ni carrément motif bi ak bii. dëgg ah, sax fin de contrat mois d'août 2023 tu seras radié. en saay rek gisuma sama contrat ba gars yi di di kii nii. Mhm. instant bi ñoo ay fraude la ñu nekk di def ci ci ci ci gars yi am récemment dem na ministère de l'environnement. ñoom mhm. quatre personnes Saint-Louis lañ nekk Saint-Louis Dagana xamnañ bu baax lu may wax soxna si dafa jógee Saint-Louis dem dem ministère de l'environnement mu gisant ak sëy mhm. sëy ne ko non yéen seen virement envoyé nañ ko yàgg na. d'accord bénéficiaire bi mu wax tour bi effectivement yor nañ dossier nañu fexe ñu lijjanti dossier wala ñu porter leen plainte parce que mbir yi mënatu continuer un million quatre-vingt mille francs ñoom quatre agents mhm. seen salaire yooyu noonu. Hmm. xoolal depuis 2023 bi ñu ngi may topp ci dossier bi demoon naa fii nii topp leen ba léegi jox am nga ci ay preuve yor la neexee ma génnee ko ma jox leen dossier bi ngeen gis ko d'accord 1 million parce que ñooñu quatre-vingt c'est des personnages ñoom quatre personnes mm. yoo xam ne dañ leen créé mooy nit ñi fay tay liggéey voilà ñu téye la yow après ñooñu xaalis bi dañu naan diw lañ ko jox léegi ñoom ñoo koy séddoo seen biir te ñoom dañu am ay numéro yoo xamante ne dañ lay signaloo contrat pour mën a wone ay motif quoi voilà pour mën a wone ay bulletin de salaire yoo xam ne am na fu mu jaar te yeggul si ñoo xam ne ñoom ñoo ko yelloon mooy motif yi voilà te amul benn agent d'appui forestier ñoo xamante ne am nañ couverture maladie universelle d'accord li ñu wax ni sax dañ ko wax ni rek ci gémmiñ ils n'ont pas appliqué d'accord nous, nag dëgg yàlla lu ñuy bëgg mooy euh, lépp lu nga ni jaar na fi di ni comme des pro mais man de dama ko wax man man maa tey parce que lii mënul continuer ci li doon euh, li kii on ne peut pas gérer une nation. Mhm. avec le père les <laughs> c'est c'est anormal mënul mënul jàll. Mhm. Aliou ndoy porox ndoolam yëpp comprendre mais nous ci bàyyi xel parce que jusqu'à présent. Aliou Ndoye am na ay toppam ci biir ministère de l'environnement ça que ça mm-hmm. soit clair am na ba léegi nii ñoo xamante ne ñu ngi yor dossier képp ku ñu yor fii xaalisam bëgguñu koo delloo li ñuy wax kii nekkuloon di xëy 4 mois yow fay ñu la yow ni ni ñu xamee yow ni nga dundee ku ko xam

naka lañuy defee seen mafia di dugal ñeneen fonction publique te nga xam ne ñoom ci recrutement xëy ndaw ñi la dugg xam nañ lépp le ministre de l'environnement Daouda Ngom vraiment ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaan ci patriotisme bëgg réew mi mu déglu lu ñu koy wax parce que ñun waxantuwuñu dossier yëpp yor nañ ko te lu ñuy wax ni dafa leer mënoo yor ay ndaw xëy ndaw ñi ñoom ñëpp ci ñu bokk ci benn programme ñee di jooytu fële ay question trois mois quatre mois ñee ñee di dugg fonction publique c'est pas du tout normal c'est pas sérieux la may wax nii kooku damay wax fu mu nekk moo ngi ca Louga côté Kokki Kokki waaw d'accord lu ñuy wax daf ci leer te des proches yoo famille yoo xamante ne dañoo bokk ci famille wu bay di baax gars yi jël leen prive xolal ñoom daal lu ñu def wasalaam am ñoo xamante ne ci secteur yi doo leen mus a gis jour paiement nga leen di gis

des agents, voilà, ils sont proches le, chef secteur, voilà le sergent de la pépinière. Nga On les utilise pour qu'ils fassent les sales boulots. Mais nous, duñu démé Sale boulot dara boulot c'est-à-dire Sale boulot je Manam nga def naka def doo def la def def parce que comment ça fait-il que yow ñu recruter la ci programme xëy ndaw ñi xam nga ni carrément yow contrat moo leen boole yow nga gis say nit ils ne sont pas dans des bonnes conditions yow yaa ngi ni di liggéey ñun euh, bu ñuy dem feu de brousse. Mm-hmm. équipement feu de brousse sax amuñu ko. Mm-hmm. boo jëlee toni eaux et forêt mooy toni yi ñuy dotee mooy xëy ndaw ñii. Mm-hmm. ndeysaan. dafa metti sax. benn yoon amul lenn loo xamante ne ni. respecté nañ ko si contrat hmm. j'aurais aimé que ministre du travail ñu xoolaat contrat yi ñu xam ni carrément ni que franchement parler lu ñu bind ci contrat yi parce que ñun suñu contrat yi am na ñoo xamante ne jot nañ ko 2021 wala 2022 hmm. mais am na sax ba léegi ñoo xamante ne ci eaux et forêts jotuñu ko ba ginnaaw suba hmm. te contrat am na contrat yi ñu signé août gii boobu boobu laa signé wul. boobu lañ confisqué sama contrat. boobu xam nga ñaata am na ñoo xamante ne ba léegi ñoom jotuñu sax seen contrat mais signé nañ ko te ñeneen ñi sax ba léegi yor nañ leen 5 mois. d'accord 17 mois lañ ñu ngi def suñu recensement. Macky Sall rencontrer le ministre de l'environnement. Macky Sall ñoo def ko ñu jox ko dossier.

Il faut auditer les auditer fonds pour xam. ndax ñi ñu fay des emplois réels ou c'est des emplois fictifs. absolument ndax dafa am ay surfacturation ndax dafa am ay détournement parce que boo ko leeralul yow yaay hérité de cette responsabilité. de mauvaise gestion. donc je crois que c'est xel peu le dal ci euh, secteur yëpp dinañ audité, auditer. faut def état des lieux. D'accord. Et ñi nga xam gérer ñoo géré woon euh, duñ ci génnee noonu euh, comme ni nga ko fàttalee Omar euh, euh, ministère de l'environnement. absolument donc nous euh, avons ñuy wax affaire licence de pêche et tout ça. donc dina am une chambre globale, une audit global pour nous ne situer responsabilité mm. mais boo le département yu bëri non la mel. boo demee ministère de l'habitat am na fa benn fonds fonds fonds de promotion de de l'habitat social. Hein? képp ku jënd tonne ciment dag nañ la 2000 dougal ci fond boobu. te ay millions de tonnes depuis 2014 ba li ay millions de tonnes le Sénégal di produire tonne bu way jënd rek dag nañ la 2000 dougal ci fond bo fond bo nak duma ci dugg gum légui mais ay mbóot kessa la. ak yenen ak yenen ak yenen ministère yu nek mhm. infrastructure. Euh, euh, action sociale dafa bëri ay fonds yo xamné ci la homme politique yi doon def lu leen neex loolu nag ñu ñëw jël nguur gi bees dañ ko war a auditer ba noppi ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéey ñu léser leen mhm. teg ci seen kaw ay clientèle politique wala ay ay homme fictif ñooñu loolu aussi ñu ñu élucider ko ba ku nekk répondre de ses responsabilités dégg naa tey ci TFM je fais pas de publicité mhm. ñuy commenter l'actualité ni léegi ñi nga xam ne dañu am ay indemnité yi ñu percevoir te war ñu ko percevoir wala ay emploi fictif ak yooyu soxlul ay tëj kaso nañu récupérer nañu delloo xaalis rek après ñu bàyyi leen ñu dem. mais loolu dafa yomb. day que sàcc doo ñëw ñu li nga sàcc rek ñu ah. bàyyi la. dañ lay la même bu dee dërëm. xoolal ñuy sàcc ginaar ñu ngi loolu dafa yomb trop ay delloo leen li ngeen jël après ñu bàyyi leen. Hmm? loolu bu mu fi am de. loolu bu mu fi am de

alors que léegi si moo yooyu la ñu nekk di joué di lëndëm loo xam ne la faute de gestion. voilà wala euh, ñu ne faute de gestion ah, ak lépp yow uh-huh. yëpp sàcc la. yan kàddu ngay tàggoog waa médaille waa boo dégloo li li nga xamante lu la fi génnee ci ay mboot da ngay da ngay comprendre ne dëkk bi li ñu fi war a lijjanti dafa dafa bëri. Mm-hmm. te on comprend que les nouvelles autorités en tout cas am nañu liggéey boo xamante war nañ kaa def pour càmbar wala pour en tout cas xoolaat ni ñu yore ay luubal yu bëri yu nga xamante ne euh, def nañ ko te euh, je pense que tey dafa jot itam euh, li lépp comme li ko doon wax sànq léegi nii li nga xamante ne ñëpp a ko bokk ñëpp xam nan lañ ko nan lañ ko gérer parce que c'est anormal quand même ñu voté benn budget boo xamante ne pour ay ndaw la wala pour fee ko ay nit yu nga xamante ne ñoom ñoo doon def liggéey bi am ñeneen ñu nga xamante ne dañuy toog ci bureau yi di jël xaalis boobu noonu du koy du koy séddoo donc je pense que li li ngeen def nii war ngeen kaa def te boo leen ko defalee tamit war ngeen kaa def parce que c'est anormal seen xaalis la seen xaalis lañ jël di koy yaata yumbee mm-hmm. donc tey dafa jot quand même

ak gendarme beeg policier bi té amu ko woon. Mm-hmm. kon loolu plus de centaine plus de centaine éléments ñun ci mm-hmm. wa côté Grande Muraille Verte. dossier bi manqué yoon voilà loolu. après naa la ko naa la ko envoyer warul léser kenn. ci walu liggéeyam discrimination boobu aussi la war a am na solo alors euh, monsieur Mané yan kàddu ngay tëjee laata ñoo dem ci euh, deuxième partie émission survol de l' actualité. voilà lu may tëjee mooy maanaam euh, état boo xam ne moom moo fi ñëw léegi te ñu dénk ko liggéey bi parce que ñun boo gisee sénégalais yépp naw leen ba voté leen.

ñu né ci 30 éléments 10 lañuy jox contrat parce que ñoo dañoo commencé won fippu ñu né 10 lañuy joxé contrat té amna ño xamné tok nañ fa depuis depuis mois de mois de euh, depuis 2014 ba tey amuñu contrat dañuy bay ba ngay waji a ñu défaral le contrat mm-hmm. lool moy lan motax état bi dañoo wara a ci tous les dossiers mm-hmm. parce que fi le mal est profond maanaam di wax nak ndaw ñi nañu dem xel dank parce que fi dafa luñ lu fi lu fi gaay yak bari na mm-hmm. dañuy dem ak ñom dank gungé len ba ñom ñu ñu def lu ñu wara def ñu raxass lepp lo xamné mo fi tilim ñu génnee ko teg ko fële. am solo merci beaucoup alors euh, monsieur Diallo yeen cadeau ngay teujé waaw euh, lu teujé moy euh juste pour la jeunesse <coughs> di ñëw wax ni rek li Marie Ebner Weissenbusch wax mu ni euh, jeunesse nous apprenons avec l'âge donc mën nañ wax ni vraiment ñun ndaw ñi jang nañ lu bëri ci mouvance bi.

très sincèrement bi dama bëgg toog ak ñom ñu jox leen dossier yëpp pour ñu xam ne ñun lu ñuy wax mm-hmm. waxan ko wuñu mm-hmm. loolu la te ñu remercier leen di naan vraiment merci beaucoup am ngeen jaaraama on jaaraama am na solo ñu ngi lay jaajëfal alors mu ngi noonu di lañ leen jagleeloon tey ci première partie survol de l'actualité juste dañuy marqué euh, benn pause bu tuuti daal di ñëwaat ak yéen des leen ak euh, ñun léegi léegi ci survol de l'actualité pour la deuxième partie merci beaucoup